Alioune Soumaré maa ngi lay nuyu. Ndeye Comba Moreau maa ngi lay fay bu baax. voilà Alioune Soumaré nga nekk consultant sportif euh, déjà CAN 2024 bi euh, si 13 janvier bi lay euh, tambale yi lan mooy défi yi nga xam ni moo nekk ci kanamu équipe nationale du Sénégal. waaw défi défi xaar équipe nationale du Sénégal mooy xam nga ñu ñoo yore ndam bi donc bu ñu demee li ñuy war a jëkk def mooy fexe ba te ñu bañ ko foqati suñu loxo. loolu daal mooy ndam bi ñu jëkk bi ñu war a défi bi ñu war a jëkk relever mhm. donc je pense que Sénégal dafa war a dem ci kan bi pour conserver son trophée loolu mooy défi bi majeur waaw te pour relever défi boobu euh, lan la Aliou se war a def ak aussi euh, les autorités sportives waaw autorité sportive yaakaar na ne li li li soxal équipe nationale A bi moom desele lu leen dara li war si ñoom ñëpp ñu ngi koy def depuis des années léegi nag euh, Aliou Cissé moom moom moo xool nu muy fexe ba équipe bi mu dolli si ay ay ay xale yoo xam ne dinañ mën a ñëw yokk taxawaay bi parce que ñi fi nekk boobu ba léegi depuis fukki at wala fukki at ak ñaar ñoo dañu dem ba léegi ñuy commencé euh, magal tuuti di commencé te compétition Afrique dafa metti donc de temps en temps ci biir équipe bi foog mu njàmbaas si ay xale yoo xam ne bu ñëwee dinañ apporter un plus. ah ñoom ñëpp nag ah, ñu mag ñi aar leen ndax ñoom pour mën a jongante jongante bu mucc mhm. si côté footballeur euh, loko yi doon nañ xaar sax Alioune euh, sélectionné si doon nañ wax kaaw ama ama amadi amari Amara exactement mais gis nañu finalement sélectionné wu ko naka nga gisee mbir moomu. waaw loolu moom lu bett ñëpp la. ndax am na dëkk yu bari yoo xam ne jël leen ay xale yoo xam ne fukki at tax juróom-benn ñu am ñu dugal leen ñuy football loolu du ci dara waaye moom euh, xam na ne moom euh, sélectionneur la boo xam ne moom moom du jël ay risques yu bari moom du ko doy daaw lu mu lu ko wóor rek lay def du jéem a tenté dara yu mel ñu mel noonu moo tax ñu mel ni Amara Diouf dugalu leen alors que ñoo ñu baaxoon nañ ci équipe pour apporter loo xam ne euh, adversaires yi xamuñu ko miinuñu ko loolu mooy tax nga leen di bett mais adversaire bu xamee sa taxawaay xam na ngay doxalee pour nga bett ko day jafe. Mhm. Euh, manque de considération boobu lan moo ko expliquer le fait que du ñu jox autant de chance euh, joueur la koy pour ñu wane seen bopp surtout si genre compétition yu demee nii di Coupe d'Afrique de Nations. loolu moom bett nañu bëri ndax boo xoolee ren Sénégal dem na CHAN joueurs yi ko dem jël ñoom ñëpp ay locaux lañu xam nga boo demee chan genre coupe d'Afrique des nations bu ndaw la rek waaw ñoom ñu ñëw def résultat moo lay won ne si xale yooyu amoon na si ñaar wala ñett yoo xam ne waroon nañu mën a bokk si sélection bi mais moom du ko def donc euh, moom ku li ñu yàgg wax rek moom dafa nekk entraîneur boo xam ne moom su xësee ba ngooy si dara pour nga jëlee ko si day jafe loolu moo waral euh, championnat bi demee nii te loolu aussi baaxul ci xale yi parce que dañu xam ne dañuy football tant que yaa ngi Sénégal doo dem sélection moo tax dañuy préférer dem à l'extérieur ah pour a condition yoo xam ne sax des fois du tax mu baax mais xam na ne ku fi toog duñ la jël moo tax ñoom ñëpp ku football tuuti ñaar sa xel dem ci Europe pour mun ñu mun la jël sélection loolu na war nañ ko xaw a sopp soppi tuuti. Mm-hmm. pour développer euh, football local boobu euh, exactement lan la ñu war a def Aliou Soumaré si sa xalaat. waaw sama xalaat bu gàtt mooy euh, réforme. il faut réformer le football sénégalais xam nga dans les années soixante dix Lamine Diack defoon na ko parce que dañu gis ne club bi dañoo bari Sénégal bari Dakar te amuñu ay espace yu bari donc am na club yoo xam ne bu leen boolee ñu lëkkaloo seen doole day gën a yokk seen koom-koom gën a yokk ay joueurs de qualité réforme moom faw mu am ba pare infrastructure yi faw mu am nit ñi mën a jouer dans chaque localité donc loolu mooy développer le football local donc Sénégal li mu gagné ci coupe d'Afrique yi ak coupe CAN yi mu ak coupe du monde yi mu joué dañ ko a ñëw injecté si football local bi pour club yëpp mun a am doole mun a dem en Afrique face à Afrique am na fi ay Ligue des champions am na fi coupe CAF mais yooyu yëpp amul benn équipe Sénégal bu si bokk loolu tam ay jafe-jafe la yu yu yu bari Euh, aussi ñuy euh, laam-laamee naan état de de forme maanaam joueur yi war a dem ci kaan euh, bi dafa xaw a des daal joueur yi daal actuellement brillé wuñ comme c'était le cas avant CAN bu mujj bi naka nga gisee mbir moomu. loolu moom dëgg bu wér péng la parce que bi ñuy mujjee dem kan bu mujj bi ñu koy jëli ji boo xoolee. cadre équipe Sénégal yëpp ñu ngi doon jouer en Premier League mooy Angleterre championnat bi nga xam ne moo gën a relevé léegi xool leen fi ñu joué ñoom ñëpp si ay équipe yoo xam ne la wax dëgg yàlla amu si kenn ku si joué si équipe bu mag a mag a mag mag à l'heure actuelle c' équipe la yoo xam ne en Europe pratiquement ay ay équipe de yu yemamaay lañu donc loolu def ba pare ñu si bari tam dañu am dañu dañu commencé nekk mag parce que boo defee fukki at wala fukki ak ñaar ci ci ci football yaa ngi commencé commencé jëm mag donc boo demee gaañu yi day bari récupération bi du gaaw. moo tax ñuy wax toujours équipe dañ ko waral a toujours di si dolli ay xale yoo xam ne ñooy ñëw par benn par ñaar pour mun a yokk yokk taxawaayu équipe bi loolu aussi lu ñu waroon mun a joyanti la avant ñu dem kan parce que sinon ñi nga xam ne dañ jóge si blessure wala ñi xam ne jëm nu mag compétition bi métti na méttiwaay boo xam ne un match tous les trois jours kooku il faut nga nekk xale il faut nga am taxawaay il faut nga jouer si championnat bu dëgër pour mun ci génn. Mhm. Alioune ñuy wax ni euh, Alioune Cissé coach des Lions ak staffam dañoo toog juróom benn weer yoo xam ni joxuñ leen seen salaire naka nga gisee mbir moomu. loolu de euh, loolu moom lu ma jaaxal la lu doy waar la parce que tamit lu luñ ci mënti wax Alioune Cissé mooy entraîneur bi nga xam ne li mu fi def si résultat kenn mësu ko fee def te wax dëgg yàlla nag nga toog euh, juróomi atax juróomi benn. te te joxuñu la salaire lool képp ku mu daloon dina métti sa ku mu daloon sa kaw dina métti mais loolu jaaxal na ma lool lool loolu bu dee am na nañ ko nañ ko defar rapidement balaa ñuy dem ci kànd parce que loolu mun na perturber joueurs yi sax seen bopp mun na leen perturber. Hmm. ak ak moom si boppam même su waxul dara sax moom. xam naa ne affaire bi euh, lu doy waar la loolu daal nañ ko nañ ko lijjanti léegi léegi léegi balaa ñuy balaa ñuy dem ci joŋante. Hmm. naka nga gisee euh, maître Augustin Senghor ni muy gérer fédération sénégalaise de football. d'une manière générale waaw hmm. euh, liñ ci d'une manière générale mooy am nañ ci satisfaction ndax buñ la dénkee résultat moo tax ñu dénk la. bu ñu xoolee ci résultat yi amuñu dara luñ koy wax ndax jël na fi kan jël euh, compétition africaine yëpp catégorie yëpp ñu jël ko ah, am fi ay meilleurs joueurs meilleurs entraîneurs donc foofu résultat sportif yi baax na mais fi ñu koy xaar c'est c'est investissement xaalis bi ñu jëlee ci compétition yooyu ma wax léegi ñu ñëw injecté ko ci football local pour développer le football local ay infrastructure club yu foor ak moyens yu fort loolu mooy mooy suqali football te loolu loolu moom côté boobu gisaguñ ko ci bu baax. Mhm. Euh, te aussi dañuy gis ni pratiquement mooy yu baree bari dañ koy jox équipe A bi. Euh, fàtte mhm. ñeneen ñi loolu aussi noo ko gisee. Ah, loolu moom loolu moom jooy nañ ko ba sol parce que am na fi club yoo xam ne bëgguñu sax dem Afrique parce que boo bëggee dem Afrique passe passe avion yi sax day jaali jafe-jafe si yow. Mhm. donc sa équipe nationale A bi moom moom la ñu jox lépp. c' est vrai que jox nañ ko lépp waaye indi na ay résultats waaye football du équipe nationale yeneen euh, équipe yi yeneen sélection yi war nañ leen jàppale bu baax a baax a baax a baax parce que maillot Sénégal boo ko Sénégal Sénégal la hymne nationalu Sénégal benn la. Mm-hmm. donc club yi bu ñu génnee Sénégal la ñu représenté dañ jàppale war football bu baax local bi ak yeneen branche yi. Mm-hmm. ba tey équipe nationale nag ñu jox ko gëddëm comme ni ñu ko joxe wax dëgg yàlla waaye nañ wàcce nañ ko yëf yi daal na tas si ñëpp. Mm-hmm. dañuy gis ne souvent euh, suñu joueurs yi nekk fii même suñu xarañee euh, seen rêve mooy fexe nu ñu demee Europe wax nga ko sànq mais naka lañu ñu mën a développer suñu football de de de de si benn moment boo xamante ni pratiquement euh, am na ñoo xam ni dinañ préférer toog fii seen carrière yëpp qu'est-ce qu'il faut exactement pour yegg si niveau boobu parce que gis nañ naari di ko def ainsi de suite waaw loolu ndey ko pour ñu ak pour ñu pour ñu mun ko def. Mhm. il faut ñu réformer d' abord réformer d' abord le football local parce que tey boo xoolee li ñu am ci ay ay club dafa bari boo xoolee Dakar boo xoolee centre de pharmacie boo xoolee euh, koñ boo gis rek presque am dafa benn benn centre de formation xam nga loolu aussi dañuy dañuy doole yi dañuy tas ah, dañu war a lëkkaloo def benn ay fusion. def club yoo xam ne dañu am doole ñu jox leen des moyens ñu jël ay joueurs mettre leen dans de bonnes conditions xam nga joueur sénégalais booy fay un million cinq cent wala deux millions mun na bañ a génn. Mhm. wala buy génn tam lu lu ay milliards a koy tax a génn mais fii da ngay gis ay Séné joueurs yoo xam ne dañuy dem jouer ji Maroc wala pour ay cinq cent mille francs six cent mille francs xam nga loolu aussi dafa doy waar moo tax football lu lo locaux yi moom li ngay jë xalaat mooy. yàlla naa gaaw am contrat ba dem France wala dem Europe. exactement voilà moo tax day affaiblir suñu club bi. ba pare ñoom bu ñu demee conditions yi ñu demee sax léeg du baax loolu moo indi problème donc loolu loolu yëpp lu ñu war a toog waxtaanee ko renforcer les clubs jox leen des moyens. quand boo ne professionnel kañ war li ngay gagné a du mois war nga mos yore sa njaboot yore say waajur waaw loolu mooy dëgg bi. voilà merci beaucoup Aline Soumaré ñu ngi lay remercier bu baax. jërëjëf Ndeye Comba Moreau ñuy fàttali ne consultant sportif nga bokk également ci kër gi merci pour la disponibilité